jërë ngeen jëf Ousmane Sonko ma demoon dampu ji dampam ji wër na jamono jamono ji massage Ousmane Sonko mooy mbambu ci ne kay ñu xëyandool l'observateur nañu njiital parti Pastef def na démb ab déclaration ci guddi gi doon andi ay tontu ak i leeral ci coowal viol ak menace de mort yi ñu koy toppee salon de massage bi ko coow la toppee Ousmane Sonko nangu na ne dem na fa waaye faju ji moo ko fa yóbbuwoon fa mu jaar ba yegg foofee moom Ousmane Sonko yegg na ko askan yu biig yëpp ba mu set wecc ba xam le ne lépp li ko waral moo di Macky Sall moo ànd ak i ko kompolo ngir seet nañu ko sànke ci wàllu politique bi kàddu yooyu Ousmane Sonko yëkkati discours masseur la ko l'observateur la tribune Usman Ousmane Sonko mi ko yëkkati moom li mu ko tuddee moo di ay complot yoo xam ña nga ko nase ca kaw tuumal na ci complot yi ya ministre intérieur Antoine Félix Diome tuumal ca procureur de la République Serigne Bassirou Gueye Le Quotidien ne ko ak Macky Sall Ousmane Sonko nee na ñoom ñoo nas seeni complot teg seeni pexe ngir ko douleur lombaire la amee ab médecin am yu mu ko digal ca yi mu ko digal maasé wu da caa bokk mu ne am fu mu njëkkoon dem di maasé waaye foofee seer mu seer moo tax yoon la fa dem noonee ci lañu ko conseil sud beauté vox populi nañu démb ci déclaration ba Ousmane Sonko dem na ba becc bulletin médical am ngir rag abderam na it ne yoon yamu fa dem yépp di massé wuji ñaari xalé yu jigéen ñoko doon massé amu ci ben yoon bo xam mom Ousmane Sonko wéet na ak Adji sar ci ben absal anki dina kay nañu Ousmane Sonko leeral na démb waxit limu mu jàpp ne mooy dëgg ci yëf yi waaye ci waxam ja bari na ci ay ponku yu leunt xelu askan wi lisé ko nañu mom kay dafa melo ko ku ak fetalam di fetalub tankam ne nangu na ne dem na ci salon ba waaye faju ji moko fa daan yobbu dembeug barki dembu mudi weekend bi ñu génn yene kay bi nee nañu guddoon na lool ci njiital parti Pastef gi seet nu mu mën a def ba défendre boppam ci la doon liggéey ak juróom-benni avocat yi mu jël avocat bii di maître Bourse Pouye moom Les Échos nee nañu dafa bañ du dugg ci dossier bi défense lul Ousmane Sonko défense lul ndaw si moom Sweet Beauté di salon de massage bi ñu ne fa la yëfee xewee Les Échos nee nañu ñi dañu ko garder à ñoo ngi wax lu ñu xamul kenn téyewu ko bañ na ko ba sax moom ndaw si bu yàggul la wasin journal bi wax nañu ne guddi ñu toll dem jëli Ousmane Sonko ca këram bokkagul ci yéenay sandarma yi sandarma yu section recherche yi daal li ñu bëgg moo di def ay prélèvement ci Ousmane Sonko la seen kay nañu ak lu ci mi ngi gën di photo ñu ci Ousmane Sonko Sud Quotidien nañu sandarma yi convoqué nañu ko tey ji ci suba ca section recherche waaye Ousmane Sonko nee na demul moom du noonee la ñu koy convoqué ndaxub député la bu ko sandarma yi soxlaa nañu jaar assemblée nationale libération tegal ñu ci ne moom Sonko teg na ci ne bu amee ay sandarma yu ñëw këram bokkoo koo jëli dana ko ñàkkante ak ñoom journal bi nañu fa mu làqu ba parlementaire am dimbalaanoo kiirlaay ma mu amee ci assemblée nationale tey jii ci lañ koy tàmbale muri l'observateur di dëggal ne ci levée immunité parlementaire ci la jëm ñu dem ci journal li quotidien fekkaat fi coow li nee nañu Ousmane Sonko xamle ne ne ci jamonoy galaajateur ci la toll waxtu toog ci saaleeg nekk ci internet bi di xeex jeex na jamonoy jàmmaarloo defante raag banaaw ca la toll ndax ki ñu ko séqal di Macky Sall loolee rek la xam rapport de soit wax nañu it li tax ba waa police dem toogaanu ju siège bu journal Les Échos mi siiwal xibaar bi keroog leneen lu jaaxal journal bi ba tax mu xëy di ca wax moo di nee na ba yëf yu tàmbale ak léegi waa AGS association des juristes sénégalaises kenn déggu leen ci Adji Sarr di maasekat bu jigéen bi tuumal Ousmane Sonko ku bëgg xam mooy kan dëgg-dëgg xooli ko ci l'observateur ubbil yéenekaay bi Adji Sarr Fatick la fekk baax ñaar fukkeet la am ku teel a ñàkk yaay la baayam it yaru ko ci fukki ak ñeent yéenekaay bi nee nañu ci lañu ko indi